aliya naaw nee na leer ga nag daal di toog foofa nag ci asamaan su njëkk si nag ba suñ borom bind aadama ci ban keroog ba yàlla fabee maam sunu aadama tël la leer ga naaw tàbbi foofee sa faya keroog ba yàlla bindee suñ maam aadama nag ci ban ba tër ko ca la leeru werante bi nag tëb jógee ci asamaan su njëkk si daal di ñëw nag tàbbi ci ci ci maam sunu aadama maam sunu aadama mbóota Moustapha la tënnoo moo tax ñu naan studio li tiinee laaw nee na maam suñu aadama ba nga xamee ne tooñ na suñu borom euh, maanaam ba suñu borom euh, euh, maanaam génne ko àjjana moo xawaa ndax garab gan laaloon ci ci ci ci barkeb yonent bi maanaam ci la tuube maanaam suñu borom déggal ko loolu mooy loolu ñëw na ci suuratu Baqara malaaka yëpp su jot iblisu lànk taxaw lil kibri wal kufri wal kufraani yàllaaw malaaka yëpp nag bindee leeru suñu maam aadama def ci moom leeru yonent bi kon dañoo wax ne sax malaaka yi en fait bi ñu dundoon sujjóot sujjóot suñ borom moo leen jox ndigal li sujjóotoo di aadama waaye ngir leeru yonent bi gi yàlla def ci maam aadama lañ doon sujjóotal ndax du jëmmi banu kese maanaam leeru yonent bi nga xam ne moo nekkoon ci aadama moo tax suñu borom jox leen ndigal ngir ñu sujjóot li sujjóotoo di aadama fa sajadoo illaa iblisa aba wastakbara wa kaana minal kaafiriin moo tax sëñ Musaa Ka nee na malaaka yëpp su jóot ibliisu lànk taxaw nit ki biimal ko ngir maanaam ak rëy rëylu ak weddi moo tax moom su jóotu leeram nga sax ca gannaawam gannaaw maam ja ay ati at malaaka yaa ngay fi jaar sàbbi yàllaawu maam sunu aadama naa bur yàlla woy tuxalal leer ak muhammadu mii ma xool ko yàllaawu leer suñu maam aadama daal suñu borom nag tuxalal leer ak muhammadu bi ma gis ko ndax ba léegi gisagutoon leer bi jàkkaarloo ak moom leer ak Muhammadu gaaw mu ne leeram nga leeral jëfëb maam sunu aadama far malaaka yaa nga sujjóot di lóoru suñu bi ci jóob sunu maam aadama maanaam mu koy leeral malaaka yi di suñu maam aadama nag daan na yàlla leer gi roof ko ci sama baaraam yi kérok la yalla toxal leeram ga dal di sol ci sandi kay ba mu janloog leer ga yalla wu motax kuy taya sandi kay ba bu wér moy sandi shaytané ngir leeram ga yalla wu na lolu motax nak ba suñu borom jëlé leeru sayyidina Muhammad def ko ci sandi kay muy baaraam bi ñuy ñuy taya sëñ Moussa Ka néna na motax moo tax kuy taaya di taaya di sànni bi di taya ni ndax néna na moy li nga xam moy mooy shaytané maam sunu aadama janloog leeri saaba yi gën na yàlla roof leen saa waaram suñ maam sunu aadama daf daal di ñeenti leeri saaba yi muy xulafaa raashidin daal ne suñ borom defal ma leer yi tamit bur yàlla dottil ko leer ak Babacar ba mu ñëw mu roof ca diggal ba muy sàbbaale yàllaawu Ousmane leeram nga ak leeram Omar ga mu am mooy dem defal ca waaroom ya yàllaahu xànd yu xaydara baaraamam dayam lëtanoo leeram nga jolli na fil asbaati yàllaahu ginnaaw bi mu jëlee woon yonent bi leer gi def ko ci baaraamu sànnikaay bi yeneen ñeenti baaraam yi ci des mooy bu digg bi ak yeneen ñaar yi nga xam ne moo ci topp ak baaraam bu dégg bi mooy yeneen euh, mooy ñeenti saxaaba yi loolu la def ci baaraam mu ne is mu ne lii tax ku xam buy tasal doo gis mu ŋaab du kurus waaram ya nay fab ba jot seen bët yi yàllaaw moo tax sëñ Musaa Ka nee na koo gis muy tasak te yurub kurus te fekk di ko koo xam la nee na ca tasab ay baaraamam dox ba ba jot seen bët ya yàllaaw te nee loolu lu wax la ndax nee na isqiila man sabaxal mawlaa bi asbuhum yi xat sabaxat mawbol am jaadu yàllaaw maanaam lim lima lima tanaqala nuurul Moustapha wa kaza anwaaru asaabi id jaddiyallaahu waxattira nadari al Moustapha karaman dëhran bi xarsin sasiyin min ka yallaahu wasalliyanna bi taslimin xalayhi bihi wa rawiha ruuxa bi rayxaanu yallaahu déglul ma wax la aslëf yow ci aadama ak yoneen ya ak ñalag ak maamam ya yallaahu diggante aadama ak àddinaana jeesu ko lim yii téere lim nañ ko yaa lëm nañ ko yàllaaw nee na nag déglu nag ma wax la aslëf ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonent ya maanaam yonent yi xettale koo ci moom nee na nag diggante nag suñu maam aadama ak àddinaan te mooy maam bi nga xam ne bu ñu lim fa la ñu yim nee na jeesu ko lim nee nag am na sax téere yu ko indi am na yoo xam ne dam dañ koo lëñ maam dañ dañ koo lëxëñ waaye moom buy lii bu lay limal daal du la limal tàmbalee ko ca aadama ak ca addunaam loolu la bëgg loolu la bëgg a wax mu ne lama araada illaahu xasimaaliku naan isxaari xayga wara fi naasi yallaahu la bind aadama def ko tën ca lan fukki fan fa buntu aljana xablal xalqi yallaahu nee na ba nga xamee ne suñu borom borom aras jublu na maanaam daal ci ci maanaam euh, euh, feeñal euh, julli ngën jëmil yëf ca la bind aadama ci boppam daal di koy tënk ca buntu ca buntu àjjana maanaam mu def fa fukki at ñeent ñeent fukki fan leeram nga roofu maamam aadama waraloon buur yàlla ko la maataaba yan daaw famille ak gantal ga daal di mu daal di jóg gis li ànd mu bind maam sunu xawwaa boole leen ca mu sol ko leer ak rasuulillaahi keroog ba maam awa ëmbee si sa leer gatu ko ca nit bi aadama ànd ak awa yàllaaw keroog ba si sa juddoo leer ak muhammadu fay tukkee ci moom ci àndeek eh, tuk waaw tuk tukkee ci moom ñëpp àndeek si sa yàllaaw maanaam suñu borom bi nga xamee ne bind na suñu maam aadama def ci moom leeru yonent bi keroog ba nga xamee ne suñu maam xawaa maanaam eh, eh, tollu na ab diggante suñ borom dafa jël leer bi tuxale ko ci aadama génn ko ci aadama ba mu jeex tàkk mu def ko ci xawaa ba nga xamee ne xawaa am na doom jooñu moom doom bi nga xam ne moom la wax sib sax maanaam nga xam ne mooy taaw bi suñ borom daal di jël leer gi leeru yonent bi tam jëlee ko ci xawaa ba jeex mu indi ko ci sib sax maanaam bur yàlla daal di wësal xam si ne min kutubin yónnee ko si sax mu ànd ak leer ga yàllaaw maanaam yonent yàlla si sax suñ borom jox ko juróom fukki téere ngeen jàngate da ngeen gis euh, su sëñ Tuubaa di ci wax ne noonu maanaam juróom euh, maanaam euh, ñeel ki nga xam ne mooy si sax nga sar dox ca gaa ne daawuñu mooy ngir leeri taaxaa rasulillahi yàllaaw yeneen li li yéeme bi nag mooy bi wax yépp fa mu ko jaarale képp ca pays yàlla ya laata sax muy julli yi yëpp ay samaan ak suuf ak maanaam jant beeg weer bi ba leer gi ñëw ci aadama su ko suñu borom jaar yëpp nag daa nekk xam ne daawul na ay tànneefi tànneef rek la borom jaarale ba nim accès ci ba nim yegsee ba nim aadama feeñe ci Abdullahi ak Aminatu laata loolu xam jaar yëpp ay tànneefi tànneefi tànneef la loolu tax moo tax mu ne min taahirin xasanin li taahirin xasanin li taahirin xasanin fil jaddi yàllaaw yaa taahirul xasanu mi taahirin xasani mi taahirin xasani la sëriñ Tuubaa waxoon yàlla waxoon ibni taahirin la sëriñ Tuubaa waxoon laaw maanaam yonent bi yàlla daf koo tànnal ci fi jaar yëpp yëpp yëpp ay tànneefi tànneefi tànneef lan mhm. maanaam ba ba di nga xamee noonu la yegsee yeneen ya furxaana di lim seen góor ya kullahu moo ci mbooti taa ci ahmada taaha biir na yallaaw nee na demee ci alxuraan yonent yi nga xam ne yëpp alxuraan mi ngi lim seeni mbir ak seeni mbóot lépp rek ci mbooti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, suñ borom leeru yonent bi la dugaloon ci ñoom moo moo tax mu ne seral na naara xalilullahi ibra lakun yàllaa ne yaa naaru kóor yi fay na yàllaawu namboos torox na la fay taalam ba soppi ko mooy bardan bu ànd ak salaaman rey na yàllaawu nee na suñu maam ibrahima ba ko yàlla sànnee ba ko euh, namboos euh, sànnee ci sawaraam wa nee ci ci ci leeru euh, sallallahu alayhi wa ca la yàlla joxe ndigal sawaral mu daal di sedd mu daal di sedd sedd bu ànd ak jàmm Idrisu yoneen ba moo fam leer ga dellu jagoo buur yàlla yónni ko biir ayaati yàllaaw bi yàlla jëlee leer gi jaar jële ko ci sayyidina Ibrahima ci Idrisa la ko indi yonente yàlla Idrisa mu ne Idrisa daana wasal fanweeri téeméeri yu wér ci benn bis door a wër moomeel ga yàllaaw uxnooxa doon turwa day dëkkoog durus abadan moo tax ñu far naa ko yaa Idrisu yàllaaw gis nga yeneen bi yàlla suñ borom jëlee leer gi tuxale ko ci suñu moom aadama indi ko ci Idrissa dina Idrissa amoon na té fanweeri téere loolu tam boo léegi da ngay dem ci tasatu si xaar laamum laamum maanaam ñett fanweer ala Idriss maanaam mooy fanweeri téere yi Idrissa amoon nee na Idrissa nag aw tuuram aw tuuram dëgg uxloo xala woon waaye durus jëm daan durus lu bari moo tax ñu wooye ko Idrissa dars xam nga dars mooy leçon Idris nag nee loolu ndax durus gu durus lu bari mu ne Isxaaqu Yunusa Ismaahilu kullum moo ak seeni kem leer ga laaj taaloo fa yàllaaw leer ga lañ taaloo fa yàllaaw Yaqooba lawlaa rasuulullaahi maa bari at xaynaahu min ramadin lil xusni yàllaaw gëtëm ya muuru na mbootam Moustapha lañu sol peesu Yuusufa delloo gis ba yàllaaw yonent yàlla yanqooba alayhi salaam bi nga xamee ne mu ne yonent yàlla yaxuuba bi nga xamee ne doomam joojee di yuusufa te bëggoon ko lool ba ko doomi bàyyi bi jëlee sànni ko ca tool ba ak la ca xew yëpp yëpp histoire bu gudd la ba ñëw nettali bàyyam ne ko kat yuusufa ma nga ñu boolaloon kat tudd da koo lekk nga xam ne seen bàyyi dina leen dey ah tudd bi dégg ko xam naa ne a des lu leen neex rek waaye daal ah. nga xam ne dafa jooy a jooy yuusufa ba bët ya muur kumba nee na bëtëm